nga xam ne murid yi dañoo luq njuur mën a gëstu xam lu bari li leen feeñal mooy nangu gi nangu ne bi sëñ Tuubaa kàbbaree ci géej gi rab yi ni ci biir géej gi yëpp yëkkati nañ seen bopp ànd ak moom looloo leen feeñal nekkoon sax mën nañoo jéem a wut ay laye ay nangam waaye fi nga xam ne nee na noonu yi xam nañ loolu jaral gi mu ko jaral xoola waxtu julli jot capitaine bi ñëw na ko yow de ba ndalee ànd ak yow ba léegi dafa am baat bu dégg booy wax mooy doo tooñ sa waa jooju xam naa ne nag seen coopération lu dëgër la ndax ñor na la moo waral lii lépp doo ko tooñ mais beneen problème bi ñu posé mooy dañoo dégg nga ne doo tooñ sa morom bee moom garaawul parce que kee mën na la pardonner seen affaire la waaye problème bi mooy nun suñ gaal gii noo ko moom naa boo julliwul man naam la ko mën a jéggal seen affaire la waaye fooy jullee ndax ndox mee fi nekk ak gaal gi nun moom suñ gaal mayu ñu la nga julli ci te ko man nga boo ci jullee nag da nga nu tooñ waaye manoon naa nekk naan naa faat waxtu wàcc na ma ndax da nga nan nongu ci jaket dulu du rombu jakk te do jadd ah na ci cérémonie di wax ñuy nodd do julli ci yoy yep da yam tok faati waxtu seetaan ngeen ko ci télé tok ci cérémonie di wax rek waxtu yu jot nga laaj bañ juk koku dana julli ci geej julli da ko ko jaral mu xamne yalla ko sak jox ndigal sak geej gi di jaamu yalla mu sabbi deram kabar motax mune alimatul aada indal mughriqat benn abdul munil qariqat ni non yima andalon sere yi nañ ne man jamu yàlla la buy jamu sama borom kep mu dal wax ne kon egg gi mu egg ci martabam qadim rasul sallallahu alaihi wasallam texela go xamne yàlla bind nako te dutu ko far mu saxal ak cant nak jëme ci borom sa'adati بغير محو كتبت وكوني يا عبد القديم قد ثبت sama texe man sëñ Touba yàlla bind na ko te dutu ko far mukk waaye nekk gi ma nekk it al abdul xadim xat sabat lu sax la du jeex dafay sax te wér na te dara mënu ko dandal mu ne na kon na sant yàlla mu ne xamitu ilahi alladi jarrani ila qidmatil mujtaba dil futuux حمدت إلهي الذي جرني إلى قدمة المقتدى di sumux maa ngi sant yàlla mi ma dawale ci liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa ngi sant yàlla mi ma dawale ci liggéeyal alayhi salatu wasalam dana aqulu sa taxaddusin bi naami wallahu asalul qabula xidami alhamdulilahi lazi qad kaana li suma bi xidmati nabi jaadali maa ngi leen di wax lan laa leen di nekk li mooy xéewal kon xéewalug yàlla la aqulu sa taxaddusin bi naami maa ngi wax ak yéen waaye li ma leen di wax mooy xéewalu yàlla gum ma defal laa leen di jot li mooy man sañ Tuubaa ko sant yàlla la ci def gim ma def may kii liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liggéey ba muy liggéey alayhi salaatu wasalaam it ci waxtoom yu nekk boole ci wéetal yàlla suñu borom ci di ko jaamu saxal ko nag wéetal yàlla tawxiid kenn du ko jaay sëñ Tuubaa boo gisee taalibi yi war a góor góorlu sëñ Tuubaa amul ku koy yàpp ci diine amul lu tax lu war a góorgóorlu mooy di xam li ñuy wax di xam li ñuy def ndax am na noonu sëñ Tuubaa yoo xam ne perkaalub sëñ Tuubaa bi weexam gii nga xam ne amul benn taas lu ko gàkkal rek lañuy wër te bu dee ñoom ak sëñ Tuubaa xam na ne du gàkk ndax sëñ Tuubaa seeni maam la woon ñoom ñu ribisoo ab dóom ba weex tal sëñ bi set ci jaar ci génn nu bëgg buntu amuñu ko fu ñu jaar di déglu murid yi lu donga wax ñu ne déggal donga yi gisé ko ci sëñ Tuubaa te innamal mushrikuuna najisun ay sobe lañ dañoo sobewu ku ne jox na la loxo nga jox ko loxo sauf Cheikh Ahmadou Ba keroog bi mu ne jéeyi loxo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yemul ci bañ ko nuyu sëñ Tuubaa li muy incarné da koy incarné toujours sëñ bi dafa banque loxoom taf ci dënnam góor noonu na sàtt ko loxoom sëñ bi téye loxoom yemu ca da ko caa tegal na ko misli min ashurafa la yusallimuna mislaka min alkilaabi ku mel ni man dib sérif nu muy nuyoo xaj bu mel ni yow te booba ñëpp nuyoo waa léegi kii xanaa kon da nga koo déggut yow wala da ngaa xamul fi mu nekk xamoo position boo ko xamoon doo ko yab ci diine moo waxoon gouverneur général 1895 misli min ashurafa la yusallimuna mislaka min alkilaabi sérif bu mel ni man Ahmadou Bamba du nuyu xaj xaj bu mel ni yow kon bu dee wéetal yàlla kenn du ci jox Sëñ Tuubaa wenn bayit bi bi ko sëñ Tuubaa waxoon doy na shahidtu anna allaha rabbul xalq wa anna ahmada rasulul xalq ku ko teg tuuma da ngaa saay-saay seere naa ne yàlla dong dong dong mooy buur rasulullahi mooy yonent bi dëgg sëñ Tuubaa ne yàlla rek ay buur sëñ Tuubaa boolewut yàlla ak dara boolewut rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak dara wasiilati abuduhu almuxtaar sayidina huwa alladi man adaa taqdimuhu xufida sëñ Tuubaa ne sama sëriñ mooy rasulullah ku bañ jiitu rasulullah yàlla dana la gotti rasulullah mi bihi arumu jamil xayri min maliki fa huwa al wasilatu fi sirrin wa fi alim sëñ Tuubaa ne lu ma bëgg yàlla du ma def directement ci yàlla ci rasulullah lay yaare loolu kon xam ñun nit am nañ sañ-sañ indépendance totale ci luñ bëgg ci yàlla ak rasulullah ci sëñ Bamba la ñuy jaar ah lu ne bihi arumu jamil xayri min maliki lu ma bëgg ci ci yàlla laa koy jaare ci rasulullah laa koy jaare lu tax mu ne fa huwa al wasilatu fi sirrin wa fi alim mooy sama kerkeraan ci lu dëbb ak ci lu feeñ ba lu ma bëgg du ma wuti rus du ma wuti yàlla direct ci rasulaay laa koy jaare kon nuy luñ bëgg ci sañ bamba lañ koy jaare kon xam ne kooku xam ne lan mooy xaqi rasulaay sallallahu alayhi wa sallam kon shahidu ana allah rabbul xalq wa anna ahmad rasulul xaq sëñ Tuubaa kenn du ko kenn du ko waxal lu mu waxul yàlla mooy benn buur la wax rasulullah mooy yonente dëgg la wax daal di kañ yàlla subhanahu rabban li maslakin sadid هذا باختيار صفة العبيد المالك الديان ذي العرش المجيد المبدي المعين ذي البت الشديد الخالق الإنسان والجن معا ليعبدوه مخلصين أجمعا mu ne yàlla mooy buur de mooy fayaakoon bi nga xam ne lu waay jëf dana la ko fay bu ëllëgee mooy borom arash yàlla mom mo bind nit mo bind jinne ngir ñu jaamu ko ñom ñep kon woné na wéetug yàlla gi woné na bergu yàlla gi woné na kenn yàlla gi wax na ne borom bi rek moy borom bi mom Cheikhul Khadim ndax yémon na ci dédét musaxal saxal ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana lishhad huna anni raditu bika rabba hala bayna bayni wa bayna maakirin xad saada yàlla yow yaay sama buur gërëm naa ngay sama borom kon lim waxal boppam mooy lu wér yàllaay sama borom la wax allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarrada yàllaay sama borom mooy sama kilifa moo ma aar ci képp ku téppéer raditu billahi taala rabba wa bi muhammadin rasulan hibba sëñ Tuubaa nee na yàlla muy sama borom rasulullaay di sabab sopp rabbi wa wali abada abadtuhu wa gayruhu lan abuda ak fur na fi wa jësmi lan la wax yàllaay sama kilifa yàllaay sama borom jaamu naa te ku dul moom ko jaamu abadtuhu wa gayruhu lan abuda yàlla rek laay jaamu te ku yàlla du ma la jaamu allahu rabbi zahiran wa حيث أكون راحلا وقانطا كل ليل ربي في سر وفي علن ولست أسأل خيرا نافعا الله kon bu ñuy wéetal yàlla ak saxal ne yàlla rek ay benn buur mu ne si jot sëñ Tuubaa ci nungu gim nungu ne yàlla rek ay buur wéetal yàlla boromam bi ka tasamtu foog fi nii ku la dara bi jaay yi wala yasir albashar hatta akuna aabidan shakura ridan habiban mufhil mashura sëñ Tuubaa neena yàlla yow ci la wiru yàlla yow la doylo kon fegal ba bépp lor inni nawaitu an akuna abda lak wa askura rabban jitta lolu day jàngale tawhid ak wetal yàlla madda ilayya fadlahu alazima wa lam azal abuduhu ta'dila yàlla rek lay jamu ta duma dañ mukk di jamu yàlla wala sa'budu abudu dawaaman وارتجي ايس اكون خيرك سن توبا ني دوما جامو دوما جامو كودول يالا تا فوما مانا نيك خيولوك يالا لا ياكار فوما مانا نيك خيولوك يالا لا ياكار جامو غوغ مي جامو يالا ييت مو واخ ني اعبده ان شاء جل لي وفات بالذكر الحكيم من خير التفات damay jaamu yalla sama borom ba feeg ma fi bàyyi koo waaye di ko jaare ci alquranul karim alquran alkarim laa koy jaare nee na jaamu gi may jaamu yàlla te di jaare ci alquran moo jiitu ci ni may jaamoo borom nga xam ne uwaahidullah ala axtil kitab bi xidmatin lil mustafa baabi sawab lépp lu sëñ Tuubaa di jëf ci alquran lay def moo tax mu wax moom ci boppam ne yàlla moom loo na alquran moom gu sax dakk def na ma it may kiy liggéeyal alquran alquran yemu ca mu waxaat ne weeru koor wii ñu génn bu yàggul yàlla may na ma weeru koor man sëñ Tuubaa yàlla may na ma weeru koor yemu ca mu waxaat ne inna alladina shahidu almaarika wa jahadu nufuur almushrika نحو لزيارتي في رمضان سنتو باني مولم كو مسا اند رسول الله في خيخال اي يفر با ريلين ولا نو ريلا نينا بو ويرو كور جوتي دي نييو ديما سيارسي نحو لزيارتي في رمضان نيب نييو ديما سيارسي من شيخ الخليل مولم غانيو باخنا دي نييو ديما سيارسي سي كور كون بوماي جامو يالا سي القران الكريم لا كوي جاري القران قراءته كنزي وجاهي وعزتي أنلت بها كوني لله تاسد قراءة كنزي ما يسمان دام سنتبان أمو لما يدينتي مانغسي ولا يكبر فول ولا يبان لما دينتي موي القرآن الكريم بما كده جانغ رك وعملنا ما يسمى درجة ما يسمى تدغة تلا تبيت كل رب صديقون يعني كون القرآن لجل سخالكو في ميت متكن اعبد ربي بغير سنن بعض الفرائض ويعلمني ماغي جامو يالا ديكو جاري سي فرات بوما تي نوبي رك تكي سنه اعبد ربي بغير سنن بعض الفرائض ويعلمني سا يما نوبي كي فراتاي سنه لا تي تك غيسنا ريومي لي تيبال يي تك القران سي توبا جي moo tànnoon ñaar fukk ak juróom-ñett ca njaareen fu ma sa nekk daara kaamil dafa de bés daa génnal boppam ne mag ñi jàng alxuraan yi seen alxuraan jii tee si bal yi fekk leen fii wax na ko mag ñi seen alxuraan jii moo tee bal yi fekk leen fii boo demee Touba daaray kaamil boo demee njaareen daaray kaamil leen dëkk bu seen Touba sos joxe ca ndigal kaamilub alxuraan ñaari kaamil yu suba kaamilub tisbaar kaamilub takkusaan alxuraan ji du manqué bërëb bu set ñu di ko jàng lool moo tee réew mi tax moo tax mu ne woon mag ñi seen alquran jii moo tee bali fekk leen fii ndax quraan wa xifdi wa kanzi abada bihi uzahsihul aza ay subada sëñ Tuubaa na fu aw ay feeñe ba ñuy tiit ne dana agsi laa daqe ba mu sori mooy alquraanu karim kon alquran mooy sama mbir waaye yemu ci moo wax ne li chet benn qad jaxaltu nafsi laka wadi'an fakashab si mu'tasiman billahi wa rasul sallallahu alayhi waltasuq yow yàlla seral la jël na sa bop dénk la kon yàlla la dénk bopam li tax mu dénk yàlla bopam motax yàlla aral ko bopam te karange ak yàlla mo gën gep karange himal xafiisi mani'a yughni an il madafii li kulli abdin khashi'a yatlubu al xuram karange ak yàlla mo gën karange ak fetal ak ikam gëm yàlla gogu mu gëm yàlla nak imanam at tawhid ja billahi amantu wa wati aslim abdan lahu wali nabi aqdim sëñ Tuubaa mo leer lu mu wax ku bëgg commentaire ci sëñ Tuubaa sétal bindam ay nañ sét bindam sëñ bi jàng nga am nga xam-xam ya nga tafsir alquran xolal bindam sëñ bi yëri ko boo ko mandul min xusni islaami l mari tarkuhu ma la yaani bokk na ci liy rafetal islaam yi nit ki génn ci solo sa yoon nekkul boo iñaanee ba doo yër mbindum sëñ Tuubaa ba xam la mu wax boole ci am jomi noppi waaye boo jàngoon bayit bi billahi amantu huwa ci aslimu abdan lahu wali nabi axdimu giñ naa ne yàlla rek ay saa buur moom rek laa gëm rasulaay rek lay rëggee li leer na billahi amantu wa bil qurani wa bi rasulillahi batni shani sëñ Tuubaa nee na gëm naa giñ naa ne yàlla rek laa gëm saa mbir yépp alquran laa koy tàmbalee sëñ Tuubaa jëful lu juuyoo ak alxuraan déglewul lu juuyoo ak yow mi jàpp ne jàng alxuraan billaahi uminu wa wajhi aslimu lahu wa bil ihsaan dayni axtimu andi la la iman ihsaan boo doon wër position sëñ Tuubaa ngay def boo déggee benn waay ne sëñ Tuubaa na yàlla la sëñ Tuubaa na moo bind yàlla sëñ Tuubaa na nangam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bala ngaa tontu waxi kooku xoolal waxi sëñ Tuubaa ba noppi يا جيك خمال سا بوب نه لم بيند اب صحابه بيند كو اب يوننتي بيند كو كو واخ لوني تول امكو ت ليپ رسول الله لاكو جور فن فو مانا كيتيغي سن توبا نه لي بوغو تودي وول دي امو بودي دك القران لي دون بيم ديك سن تي دار السلام لا تود يالله كسي رك الله يد الله يدعو الى دار السلام بودي توبا الذين امنوا وعملوا الصالحات توبا لهم وصل المآب bu dee ay doom Cheikh Moustapha ba ca Mourtada lépp rasul lay Abdou joo dégg yàllaa ko moom xasida yi ni mu ko tudde dégg nga ko mawaahibu naafi yàlla muqaddamatul amdaax rasulullah jasbul xulubi rasulullah lu mu mën a doon raiya fii matti salaati muqaddamat mafatixu lu mu wax rasulullah jëlee jëm ak yàlla waxul génn xasida goo xam ne dana ca nangam ci man rasulullah rek ak yàlla rasulullah rek ak yàlla rasulullah rek ak yàlla lay wax kon bu ne kuy wër yàlla na xamne seigne touba mom jaamu yàlla ak liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek moy miram lolé mu sax nak di ca liggéeyal yàlla mu wax na shahidtu an allah rabbun wahidun wa li janabi la yamilu jahidu shahidtu an allah rabbun wahid seigne touba ne serena serena yàlla ben bour kep na yàlla benn buur képp la waaye sama wàll nag man waa ju tépparle wala ku saay-saay wala ku may engagé wala ku may noonu du jëm si ci man loolu boo ko laajoon Paul Marty da nga xam ne sëñ Touba rek ay sëñ Touba rek ay góor Paul Marty en 1800 1800 1900 la 1800 1918 1916 bi sëñ bii dem Ndakaaru gars yi fii baaraam bu ñu béy ñu wax ji c'est baax na. baax amna am na fi seri Madam Punti seeni sëriñ madame Ponti lañ doon way xasida ga faaxat madame Ponti la tudd xasida daa ngi fi faaxat madame Ponti laa wax Punti madame Ponti saa tudd xos Punti, la wax madame Ponti lañ ragal ngir ragal ngir ragal bi lia Ponti ba tax ñu ragal ab ab franc-maçon la woon nekk góornóor daa yi ragal ko tiit ko di tagg soxnaam mu jox ren diwu sëñ Tuubaa na day ñëw ñëw ba ma kombal escale wax sëñ Balla coro nako ko bëgg gis sëñ ñu ñew na señtu ba kilifa gu mag gi ne dalaa ya bëgg gis señ bi ne ko du ma gis de señ sëñ Balla jaax la ñew na mag ñi ah, amna lu xew de kilifa gi dafa say say te neena da bëgg gis señ bi señ bi neena na du ma gis mag ñepp def groupe ñew na señ ba ah, mom moom da melni da la bëggo na gis señ bi na tollu na ñu naaw ah, mu ne na gis pour marti ñew tok ci kanam sëñ Tuubaa reey gi japp ko ñepp ko ragal dama ne soxnaam lañ doon way xasaa it yaa soxnaam lañ doon way pour man ci tok ci señ tuba ba yag mu ne señ Balla Coro ne ko li tàmbalee fi ba ndar ba ndakaaw sama loxo bi la nek bo neexon def ko dóom señ tuba ne señ Balla Coro al japp señ tuba mu ne señ Balla Coro Balla Coro li ma la wax de boko waxe nguur ci bu yowmal qiyamé dara ji Seydina musa ngay dekké ne ko kàcc nga kàcc nga kàcc nga ne ko kàcc nga kàcc nga kàcc nga non la Cheikh amadou Bamba Xaadimu Rasuul ton ko kàcc nga kàcc nga kàcc nga lolou nañ ko jang dama nga gëssu ci faqat banam ku ko wax tañ xam ne sëñ Touba nekkul foofu sëñ Touba dépassé na dimension yi ñu xool ci moom ah xanaa mandoog baax ak bëgg lu rafet ñu ci jàpp rek ay xam leen fii fi bàyyi ko qul shahidu an allaha rabbun wahidun wa li janabi la yamilu jahidu allahu jalla ahadun allahu الصمد الذي بدل علاه ليس بوالد ولم يولد ولم يهتد بشيء من هداه ولم يموت ايوا سيدنا جانغال نو فيم نيك ويتر يلا الله جل أحد الله السمد الذي بدت أولاه ليس بوالد ولم يلد ولم يهتد لشيء من هداه لم يلد الله ربي أحد الله السمد الذي بدت أولاه لم يلد له وليس بولد خلق كل والد وما ولد كي جاندال نانيو بوبام سيدي كان مو يجي في التوحيد تي ويتال يالا تي ساخال نا يالا ركاي الله يالا ربي موي سما بوروب احد الله كين مو يالا الصمد الذي بدا ولا موي كليفه كي خامني اكاو فين لم يلد له ولا سيولد يالا جور كين كين جورو كو خلق كل والد وما والد كل جور اكو جوري مولا بين فوفلا فوفلا ساخال ويتال يالا يم اك جوخ يالا سن سن حق gis nga keroog bi sëñ Tuubaa tontoo wil yàppunti loolu na ko kàcc nga kàcc nga dafa ñibbi rek faatu dafa ñibbi rek faatu góornóor bi ko wuutu ab arabi saala dalee di dugg ci pale président bi mukk te sëñ Tuubaa ñëwut léemu ko sëñ Tuubaa ànd ak sëñ Balla Coro dugg ci saxaar gi dem Ndakaaru fii pale bi nekk sëñ Tuubaa ko léemu jël xalima gi tuba bi signal ko nako du do fekete kenn ko lo fekke ko lo soxla mo lay mo lay fekke si seigne tuba bind xalima ga signé na gess seigne Balla cioro nako am Balla cioro dencel xalima gi lo ci bind yàlla def nañ xamné nit ñi duñu ay ñu réer écran télé baxut bu la jappé soppe yi jigen ñi xoti mbubb di la may ak légui légui nit ku ñak fay da jël 10000 jox la moom tax nga tapal seigne tuba ma ngi lay digal gëstu jël faaxat ma dem ponti mi ko wax te li jënd ko xam mi ngi mel ni kilifa ko jël xalimaam rek di tagg soxna si président rek noonu rek la mel ndax dañ ko ragaloon yooyu yëpp dana leer incha allah sëñ Tuba ba tey mu won mu ci nim bere yàlla laa la yu jiid ibtidaa wala intihaa muxaalifun wa duuxinan anishaha almulku walhamdu li rabbi waxda kama lahu jalla wa azza alwaxda wala ji tawxid waaye gis nga lam ca dolli waat dulli lil fardi lazi lam yalid wala sa mawludun ataaba xale bi sëñ Tuubaa ne li dalal sama xel mooy toroxlu gi ma toroxlul yàlla dulli li fardi lazi lam yalid gis nga sama toroxlu ñeel ki nga xam ne kenn la jurul kenn te kenn juru ko ataaba xale bi sëñ Tuubaa ne li dalal sama xel mooy yëg gi ma yëg ne yàlla doo ngay buur waaye nee na ba ma gëstoo la ma ci yàlla fayal mooy dulli lahu adala riqaaba wan fuadi kasafa naqaaba nee na dana ma ni nga ma jotale sa dox yow sëñ Touba nee naa na ñëpp jat seen i dox jëlal sa ndëggul tànk tekki seen i dox ñuy baj baji bañ ñu joggi leen képp indi buru bi waaye tulli lahu adali riqaba dafa toroxlul yàlla daana toog moom dong sëñ Abdou Karim Touré nee na daana toog jublu penk na mikk ba yàgg rongo ñu naan sab sab sab sab di sotti ko ci xaftaan mu ne dënn ba yàgg mu ne cay fa nu jëm cay fa nu jëm mu yowmal xiyaamatul akbar nam daan xalaat yàlla kenn xalaat tok na ba yag mu ne seigne Demba be Demba be mu ne ko Mbakke mu ne ko yowmal xiyaam gënu jëm yawmal qiyam gënu jëm ànd fa ku ñu rus moo gën a ñu rus la seigne dem ne ko alhamdulilah bañ ànd ak yow mu ñu rus mu ne dënn ba yag mu ne ko Demba Kebe mu ne ko Mbakke mu ne ko am sëriñ bu mat sëriñ mu xam la nga xam ko jar na lu ne mu ne ko alhamdulilah bañ la amé xam la nga xam mune ne dënn ba yag mu ne ko Demba Kebe mu ne ko Mbàkke mu ne ko yowmal mal do gënu jëm de yàlla mi borom dénd bi bu doon taxañ dëndëm bi lum gaaw gaaw gaaw roo gu ma yaakaar la woon sa këru aljana do doo ma yàkkamti benn murit ben ben ben benn naar yuuxu ca kaw sëñ Tuubaa ne ko yëkkamti wu ma ko dama fa fekk yëkkamti wu ma ko dama fa fekk wétal yàlla mako may lépp moom Cheikhul Khadim huwa allazi lam ara ghayrahu wala ara fi shay'in hada wa wala gis nga lim jeexal ci boromam ngir wéetal yàlla jox gim jox boppam yàlla suñ borom yemul ca loola cay meloom mu wakkiilu ci boromam jox ko boppam a tawakkul wa tafdil anta alwakilu alladi qad iktafaytu bihi fi dafi wal jalbi yaa dal xalqi yallah yow yàlla yaay wéeruwaay bi nga xam ne wéeru naa ci yow ci ñoddi ak gañ yow mi borom bi déebi